lu gars liñ ci jublu mooy li nga xam ne nii indi ay ay wax diggante gars yeeg affaire yooyu mais gis nga patriotes yi ñoom ban la ñu war a focus d' ñoom nañu xaar ki nga xam ne nii moom la ñuy déglu warul di commentaire ci lenn gis nga combat bi toll na foo xam gars yi ñu ngi wut buntu yoo xam ne fenn fu nekk pour ñu bëgg fa jaar Habib Sy la Basirou Diomaye Faye kii laa kii bëgg indi débat yooyu ci bopp nit ñi en fait nit ñi gis nga nit ki boo ko wóoloo da koy déglu quoi. Mm-hmm. mais tey waruñu indi waruñu indi benn politique politique boo xamante ni tey kenn ku nekk yaa ngi débat fi dugg mais mais ñoom dañ war a xaar d' abord déglu déglu ndigal li ki nga xam ne nii esa bu joxee ndigal ne kii la kii laa joxoñ bu ko defee ñëpp mën a riir jàpp ci kooku mais wax waaye ay mimi la wala gi mimi dèjà moom bu fekkee ñëw war nañu mën a ñëw ànd ak Sonko lu baax la mm-hmm. dañ koy rafetlu c'est que Sénégal tey Sénégal pour ñu xeex ko tey régime bi pour ñu jógee fi képp ku baax ku nekk war nga ci mën a taxaw pour que xeex loolu dëgg. dëgg la dëgg la. waaw dañoo jàppoon ne tey fi nga li li nga xam ne c'est que ñun dañoo juddu fekkuñ dara ci Sénégal suñ yaay yi sonn suñ pàpp yi sonn suñ maam yi sonn boo feebaree doo mën a faju lekk bi lépp dafa yokk amul kenn ku wax ne ne Sénégal tey mën nga lekk ba suur amul problème yu bari jafe-jafe yu bari mais ñun ñi nekk bi ah Europe gii dañu sonn. c'est que tout le temps sa famille dañ lay woo a ma lii aw ma lee chaque jour da ngay sacrifice sa bopp pour nga am sax problème lay doon. Mhm. jafe-jafe àdduna yooyu moom moo nekk ci ñun moom moo nekk ci sénégalais yi moo nekk ci fépp damaa gëm ne régime bii wallaay Amadou Ba képp ku ko wooteel ku nekk. dëggoo Sénégal te keroog yombal xëyaam di leen laajte c'est que damaa am ne nit ki waroo mën a waroo mën a gis benn jëfin bi ba pare nga ñëw contraire nga jël sa carte nga ne yaa ngi koy dugal euh, euh, te itam sa carte keroog ba ngay woteel président tey da taxaw ne yaa ngi koy dugal ci mbañ ki ngàcce gi keroog yombal xëyaam di leen la ci gis. Mm-hmm. c'est que c'est que président dafa nekk loo xam ne dafa garaaw te te ku nekk da nga ci war a mën a déglu nga bàyyi ci xel nga xool bu baax li ngay def. am na nekk nag. Mm-hmm. am na solo. waaw du déjà du déjà sénégalais yi si boppam la ñuy focus ñu gis nga gis nga projet bi ñor nii nekkul projet Sonko du projet Basirou Diomaye Faye du projet nekkul projet Bougane du projet bii projet Sénégal la képp ku gëm Sénégal yaa ngi ci biir man loolu laa jàpp. Mhm, mhm, mhm. waaw ñu ngi ñu ngi baax nag. di la ziare bu baax jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Badaloo nee na ma jaare yow est-ce que bokkoo ci système bi ay Badaloo sama bokkoon ci système bi doo fekk du ma toog fii de kon heure bi mu ngi may fekk may dawal ci ci ci ci ci oto yu mujj yi ah yor ci xaalis bi. ah système bi dinaa dinaa mel nii di bokk ci système bi yoo xàmmee ku bokk ci système ak ku bokk ci ci système bi bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. salaamaaleykum yaa ngi Xaadim euh, bu Karim comme nee nga instant bi ah, war nga ñu. Karim Moussa président bu <laughs> euh, président am nga fulla de. incha allah bi incha allah rabi. bu élection yi jàllee doo nekkati xaadim ngay bu 2STV de comme yow nee nga instant bi moom xaadim bu Karim nga amul problème nangul nañ la ko. waaye xaadim bu jeex na. ma ma ak ba ba émission jeexee ba ba Karim Fallou Karim damay damay vraiment sama sama télé la sama télé la vraiment. ah yow koy ñu bu yàgg mais amul problème. yaa ngi ci jàpp non non waru ma la non warul mën a yéeg mën a mën a yéeg dégg des wala. dëgg la dëgg la yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. waaw maa ngi jàmm sant yëpp maa ngi leen baax a baax di nuyu mbokk état yëpp di leen ziare. waaw mm-hmm. ah, di la a taw si rek tey si yéen. amiin yaa rabi ñu bokk ko. Ah, d' accord dama bëgg a participer maanaam si li nga xam ne moom la moom la su sono bu ca wax président Macky Sall lu wax si journal journaliste yi. Mm-hmm. Mm-hmm. maam Diarra maanaam Olof Diarra def na maanaam bukki bu yemee gaynde rek maanaam su su doxul wala. boo fàttali ko fan yii baax waxoon naa ko maam a journaliste dafa nekk maanaam dafa nekk métier métier bu bu diin. Mm-hmm. dëgg la dafa dafa nekk dafa nekk nit bu am solo maanaam ñi nga xam ne ay journalistes yoo xam ay nit ñu nit ñu am personnalité nit ñu am dignité. Mm-hmm. mais dafa am loo xam ne maanaam maanaam bu bu demee ba yomb rek maanaam du ci amati valeur. dëgg la dëgg la. man de actuellement sax actuellement man de man de Sénégal ñaata journaliste la am. Hmm, bari na de. mais lii de fu mu am na xam ne maanaam ay géwél la ñoo ay géwél ay géwél waaw. dëgg la. Mhm. parce que parce que bu bu ñu ko maanaam journaliste da nga émission da nga ba pare mais doxam doxam ci fan la fan ak fan la bokk. Mhm. mais léegi nga xam ne day doon ne carrément man Macky Sall ñii man Macky Sall ñii ñu naan man Ousmane Sonko naa mais loolu du du journaliste ku nekk da ngay bëgg ku nekk da ngay bëgg ku nekk da ngay sal mais am na am am fa moom am na liggéey boo fi nekkee teel xam fan nga bëgg. Mhm. parce que bul bi bul bi day tourner waaw. mais mën ngaa fay opposition opposition bi nekk pour nga dem nga dem daa daa fee faral. te journaliste à journaliste à tout ku nekk daf lay la. waaw kon lépp looy da koy waxtaan bu baax a baax a baax a baax Macky Sall moom maanaam daal ko nekk si si journaliste yi parce que maa ngi dégg muy gaalewaale naan am na ku nekk fi ñu def ay décret bi te mu nekk mer nekk décret boobu carrément sama waa sama waa lay waxal <laughs> waaw parce que wax wax boo war ah, oh, loolu mhm. a amal a a amal ay ko nekk ba tey. Mhm. ko dóor moo ko rakat bi di mooy dëgg xool ba tey maanaam mënu saa war naa suuf. Mhm. te loolu te loolu xam te loolu ba ma muy dee du ko fàtte waaw wax na des na beneen beneen beneen mooy mooy bu fekkee mu dóoraat mu àgg teel. <laughs> Mm-hmm. bu bu loolu jeexalee bu loolu jeexalee maa gis sax benn waay bu dee dugg fi daan naan Karim bi ñëw Karim bi ñëw maa ngi incha allah maa ko maa ngi day ñëw incha allah am na ay oui ba am na ay opposition oui ba am na ay opposition yu bëri yoo ne xam nga ñu Karim ñëw parce que xool ñoo ngi digganteeg ñoom. xaaral mosuma Karim du ñëw dama ne. waaj gi waaj gi. waaw mais tax waaw mais waaw mais tax Pape Diagne Pape Diagne yaa war a wax yaa ngi sax bu mu tax bu maanaam nga wax nga wax loo xam yaa war a ñëw aussi yaa ngi sax bu mu tax bu maanaam day ñëw te sa war a ñëw ñëw jëloon ko di toog. dëgg la. Pape Diagne Karim Karim Karim gënoon boppam. yaa ngi dégg baax. maa ngi lay dégg. Karim gënoon boppam te Karim ba mu demee Qatar ba tey foofu foo ko dégg da kaa dégg si dana néew. wala wala da kaa si si benn Qatar si benn Qatar bu fay taxawaalu. kër daan wax respecté wul mais léegi lépp jeex na incha allah léegi nga gis ko mu ñëw incha allah rabi. d'accord incha allah en tout cas ñu ngi koy xaar léegi lépp. waaw léegi léegi lépp tu taxaw bu ñu waxee loxo dina dal génn. Mhm. am na ay journalistes yu bëri yoo xam am na ay journalistes yu bëri yu bëri yoo xam ne li nga xam ne Karim ñëw te maa la ko wax waaw bi nga xam li nga wëree Ousmane Sonko ndax nag loolu lañ koy wëree. Mhm. daal maanaam daal di wax maanaam maanaam da ngay gis seen lépp dañ koy gis dañ koy gis xaalis ba ba tax du ñu wax dëgg et puis duñ ànd ak lu war a àndal d' accord mais mais mais mais ak lu bëgg am rek maanaam deux mille vingt quatre yaa ngi yàlla jox ko ne maanaam moo gën suñu kon maanaam bu ñu ko waxee dina yowaat Sénégal te puis képp ku ñu fale maanaam naa ay nit ñu am pêche ay nit ñu bëgg liggéey ay nit ñu xam liggéey mais pas leen di am di am ndox bu ñuy wax assemblée nationale ñu mel ay dem Koulé Makkay ki ay dem Awa Ndibi Ndiaye yow nga xam ne maanaam jàng ñu xam ne salaamaaleykum ba ñu yóbbu assemblée nationale ñu fa nekk di saaga nit ñi waaw assemblée dafa nekkoon ne maanaam peuple peuple ñëpp ñoo ko moom ba xam ne képp ku ne maanaam da nga war a nekk nit ku am personnage nekk nit ku jàng nekk nit ku xam ne ngay wax waaw mais pas le def koy def daal fa yóbbu. waaw mm-hmm, mm-hmm. mais nag incha allah lépp lépp na jeex incha allah bu kaay dikkee maanaam léppay changé incha allah. incha allah jaajëf. jaajëf mais mais sa gars yi dañ daal di war a tënk quoi maa ngi leen di ay Californie daal di àllande <laughs> foofu. <laughs> <laughs> Eh, jërëjëf Khadim Gueye eh, kon eh, ñu déggee ko noonu Khadim nee na Karim mi ngi ci yoon bi mi ngi ñëw kon xam naa du génn semaine bii rek dinañ ko daal di gis waaye man moom semaine bi di ñëw bu ñu ko génnee te gisuma Karim Khadim damay génne sama xel ci Karim voilà 88 628 73 13 08 99. 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee rek ngeen daal di euh, mën a dugg yéen tamit ngeen daal di wax seen xalaat ci li ñuy daal di waxtaanee ñi ngi may laaj saa Touba xam naa mi ngi ci yoon bi du ñàkk léegi mu daal di dugg euh, su ko defee rek euh, comme ni mu koy defee saa su nekk ñoomal ak moom waxtaan ba am solo bu fekkee am na beneen mbokk bu ne ci ligne bi Mansour ñu daal di koy jël maa ngi lay ziar bu baax a baax mbokk mi. maa ngi lay fay lu bëree bëri di la ziar rek. Ah, yaa ngi ci jàmm. Binta d'accord maa ngi ci jàmm sant yàlla oui Binta bu Binta bu dëcce. Binta <laughs> ngeen ko bëgg a jàppee faal bu dëcce ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa leen di ziar lu bari bëri di kontaan ci yow ci émission bi. jaajëfal di jàkkaarloo di la gis. Mm-hmm, merci beaucoup. di nuyu saa Touba ñu ñu ngi koy xaar di nuyu mm-hmm. sama jaam bi Seydou Ly. Seydou Ly. Mm-hmm. Oscar. Mm-hmm. Koromaktine maa ngi nuyu ñëpp daal fàttewuma ñëpp ñoom am na ñoom sax ñoom yëpp maa ngi leen di ñu ngi lay fay ñun ñëpp. waaw di ñëw ci kii président Macky Sall ah lu mu def ci journaliste ñu rafetlu ko parce que journaliste yi am na ñu ñu déggu am na ñu xam ne déggul foo dem daal am na ñu baax am na ñu ñu bon waaye ñëpp ñu ñu am na ñu tane daal. Mm-hmm. foofu laay waxee. Mm-hmm. parce que man comme nu mu la mën a expliquer man fii laa nekk waaye am na français bu may liggéeyal. su su su suy ŋaññee suy ŋaññee sama sama sama dëkk damay damay taxaw jàkkaarloog moom wante nekkul bi may liggéeyal moo tax nga bëgg a nekk sama bopp bi di bëgg a wax lu Sénégal lu la neex man damaa bëgg sama réew damaa bëgg mm-hmm. sama dëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. ba football bu amee dama la dama damay expliqué lu rëy de football bu amoon ni parce que man damaa nekk jigéen boo xam ne man damaa bëgg football. ndeysaan yow patriote nga. wala wala peut-être Sadio Mané bu doon football. après mu ne fii de Sadio xamul de ak la ak la ak di Mbappé ak Karim ak Karim Benzema ñoom ñoo kii mu ko loolu nangu ma ko man ak moom dañuy raad dinaaw am temps yoo xam ne dafa demoon ba tëlëm ko dafa koy tere daal tëlëm bi léegi comme man damaa bëgg football. Mhm. te man sama dëkk moom li ma jaral lu nekk damay jël euh, kii bi damay jël euh, affaire football bi ma ma téléchargé ko sama téléphone di seetaan foofu. Mhm. bu ma demee doon xam ne boo xam ne kii moom lu muy woote dafa nekk ci moom te da kaa léegi mu dem jënd télé bu ndaw mu ne ma xoolal comme ñun ñoo équipe bu mag bi yéen ngeen ne nekk équipe bu ndaw bi léegi da nga jël télé bu ndaw bi ma jël télé bu mag bi <laughs> comprendre nga parce que man parce que man man man damaa bëgg football ma jaralul. macha allah am na solo. Mhm. léegi léegi mu dem dem ba xam ne man damaa bëgg mu dem jëndal ma ma ma yóbbu benn kii dafa dem commandé ko def Sadio Sadio Mané Binta. loolu laa def ci sama maillot bi moo Sénégal dafa dem commandé ko jënd ko bind ci Sadio Mané bind ci Binta. am na solo. loolu moo koy rafetlu bu baax a baax a baax mm-hmm. parce que man su fekkoon dafa wax Sénégal yi wala Sadio Mané rek ba ànd ak moom rek mu ne comme dafa nekk français man ma nekk sénégalais ba ñu xeex loolu. Mm-hmm. xam nga kon def may téye waaye man damaa xeex man moom raad ak moom bu mu nekk li may li du tax. ma jël sama dëkk ma ma ma newal ko doole. sama anniversaire ak anniversaire Sadio Mané benn la saa bu anniversaire bi jotee le dix kii daf may defaral gâteau bind ci Sadio Mané de day dem commandé bind ci sama tur bind tur Sadio Mané. macha allah mhm, mhm. moom la may defaral. waaw loolu moo tax ma kese war woon di def yooyu man sama dëkk dama kaa bëgg. Mhm. que dafa amoon ay écho yooyu. waaye tey moom maa ngi jour repos comme ni waxee rek. opposition euh, bi nañu boole xeex te liste bi dañ ko war a xam loolu mooy seen gànnaay liste bi dañ ko war a xam parce que xam nga liste bi ñuy kiiwee waa Sénat bu ñu waxee ko waa conseil conseil bi liste bii lii ñu ne bokk nañu nii bokkuñu ñu ne nekkuma ci liste électorale bi kon ñoom euh, bu ñu xeexee ñun xam ne ñoom bu ñu xeexee. Mm-hmm. il faut ñu xam euh, fiche électorale bi mu demee ak ban fiche la ñuy demee élection parce que ñun mm-hmm. aussi dañoo taxaw di xaar. ñun dañooy xaar de système bu bees la ñu bëgg. dëgg la bu ñëw ci président Déthié Fall am na ñu ne ko am na ñoo bu ñuy SMS ci suñu ne Déthié Fall la il n'est pas quelqu'un qui est bien Déthié Fall dafa am vision politique te du lu mu woote def kaa bëgg man su fekkoon dama doon ko liggéeyal mu may def loo xam ne du loolu duma nekk ci télé bi di ko tàgg. Mm-hmm. parce que ñun ñu nekk jànk Sénégal am na ñoo xam ne dañuy dund lu métti waaye man bu fekkoon daf ma doon def lu métti wala mu koy kii wala jabaram kon dama waaye nit ku baax la dafa am vision politique Déthié Fall est-ce bu kii bi nekkoon fii di manifester Déthié Fall ak Malick Gakou ñoo nekkoon ci mbedd bi di naan lacrymogène yi mm-hmm, mm-hmm. lu tax Déthié Fall dugg lu tax Déthié Fall duggoon euh, kaso Déthié Fall dafa duggoon kaso lu tax duggoon kaso dafa doon xeex pour Sénégal Sénégal bu ma bëgg Sénégal bu ma gëm moo tax su ma gisee ñeneen dañu ne Déthié Fall il n'est pas quelqu'un qui est bien ça ma daf may mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. sokke bu ñuy lim bu ñuy lim dañuy lim nit ñi dañoo boole premièrement dañoo war a boole Déthié Fall Déthié mu bëgg ci Sénégal bu jàkkaarloog di Sénégal di wax sax gis naa yooyu askan bi ñu doon def rek da ngay gis Déthié Fall ni muy waxee nga xam ne ku bëgg Sénégal la ku bëgg réewam la. te moom dafa yàgg ci politique Déthié Fall bu ko neexoon bu mu ànd ak Idrissa Seck ba Idrissa Seck di dem ci Macky Sall. kon est day ànd ak ébi parce que moom foofu la am milliards ak yi nekk lu tax mu rëccee ko dem formé un euh, PRP jëw taxal euh, partenaire. dëgg la yéen saa bu ñu ko mu nekk taxaw foofu ah wax taxaw di wax ngay xool Déthié Fall nga xam ne ku bëgg Sonko la. Mhm. moo tax nit ñi patriote yi ak euh, bu ñuy lim dañuy war di lim Déthié Fall Déthié Fall ku bëgg Sénégal la te moom politique da xam dafa am vision politique. Mhm. duñ ko war duñ ko war a jiital ci kii bu ñu lim dañ ko war a jiital. da am na solo. man loolu laay waaw loolu laay wax. Mhm. loolu laay wax maa ngi bàyyi ñoom ñu dugg. jaajëf jaajëf Seydou Ly. di wax waxal ma Seydou Ly buy wax day wax Déthié Fall Seydou Ly maa ngi leen bàyyi message bi day boole booy wax day boole Déthié Fall waaw war na ko mën a. war na di ko mën a di ko tudd. mi ngi lay mi ngi tooñ nee ku bëgg lekk nga gato bi ngay tudd boobu baag léegi. <laughs> waaw gis nga waaw kay parce que Diop yow saareen naa loolu moo tax. jaajëf jaajëf Binta merci beaucoup. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88.

Oscar Siara tey dégguma la démb da euh, sa appel bi dafa daggoon tey gisuma la euh, euh, j'espère que ni jàmm rek moo la daal di téye ndax yow ci ñun nga bokk te Ramatulaay toppkatu bi dalay xaar moom yaa koy indil kaa yi donc yow del ñëw salaamaaleykum mbokk mi ci liñ bi. maa ngi fii maa ngi lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi def maa ngi leen di jaajëfal bu baax. Mhm, tur beeg fooy maa ngi wootee Espagne. yaa ngi wootee. Espagne Espagne. Espagne d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk mi yow rek lañuy déglu. waaw xam nga man li ma dégg par exemple Macky Sall li mu wax ci journaliste yi. Mhm. xam nga man d'accord wu ma ak journaliste surtout ñoom Babacar Fall TFM. Mhm. waaye ak li mu mënta demee. Macky Sall président Sénégal la. Mhm. d'accord naa li li li ko attaqué loolu kii yooyu euh, mais euh, Macky Sall ak loolu mënta demee Macky Sall moo représenté Sénégalais yi surtout nga àdduna yëpp journalistes yi da mm-hmm. dafa waroon rafet rafetlu kàddu am ñun au moins que mu woon image Sénégal ci ci ci journalisme Macky Sall wax de. Mm-hmm. mu jaay leen mu yow sa kër gi sax yow aduna yëpp a ku nekk yow ku nekk mi ngi doon sa sa sa dëkk yow ngay commencé di xas di mel sa sa waa kër yi. Mm-hmm. Babacar Fall li mu ko tontu tontu bi man rafetlu naa ko. Mm-hmm. mais sa nañu bàyyi xel ni Sall àndul ak sagoom yaara man maa la ko wax ne nañu xaar ba Macky Sall ba ko suñ ko suñu jëlee nguuram ci nguur bi ci ci ci Macky Sall euh, balaa ñu koy yóbbu kaso xam naa ni dinañ ko yóbbu faan <laughs> nan non na ci bàyyi xel de parce que li mu li mu def Macky Sall li mu def lu bon lu garaaw lu ci réew mi yëpp dafa xam ne affaire kaso moo koy xaar mais moo koy traumatisé ak li ñaawteef bi mu def ak nit ñu baax di tëj nit ñi jaara xam nga nit ki àdduna booy def ñaawteef def ko kenn. ci àdduna mais téeméer boo gis am na koo xam ne moom nitu yàlla la yàlla ku baax la yàlla toroxalu ko yow nga koy toroxal ñooñu ñëpp bu ñu Sénégal boo boo jëlee micro trottoir nga ne cent personnes quatre vingt personnes yëpp dañuy ñaan Macky Sall lu bon parce que li mu lépp lu bon li muy def pour yàlla fay ko ko moo moo dajale ci boppam moo tax Macky Sall wérul dafa am traumatisme dafa am traumatisme nag moo gën a garaaw ci président moo tax Sénégal direction bu ñuy dem du ñu moytu parce que moom kaso rek la ci dundam xoolal nit bi Ablaye Wade di jëlee di ko bëgg a yóbbu kaso mais na mu dee moo gën kaso bi ba muy jooy comme xale léegi moom mu ñëw di fooye kaso bi di tëj nit ñi di di def ñaawte di rëy nit ñi léegi xam na ni léegi nguur gi moom jeexal na jeexal na moom léegi bu jeexalee moom yàqu na ci affaire moom ci yoomal kiyaamam bi yàqu na ci àdduna fii yàqal nañu mhm. parce que mënutul nekk ci jàmm bu wàccee depuis à part vingt cinq Macky Sall àddunaam yàgg mënutul nekk ci jàmm mu ba ilaa yawmi diin parce que li mu def ci ñaawte moom lépp bu ko nit sénégalais baale yàlla du ko ci baal donc problème boobu moo concentré ci boobu moo tax muy attaqué ku ne parewul ci attaque bi ku ne nay attaqué day wax même ni mel ni daal ku amul conseil moom sax bi wax il se rend même pas compte que li mu wax da ngeen ci seetlu bu bu ñu Sénégalais yi dañ bàyyi seen xel Macky Sall même bu wàccee rek billaay xelam dina jaxatoo. parce que nit doomu aadama doo def ñaawteef yu mel nii. Mm-hmm. après sa conscience bi tranquille mais mënu nekk Macky Sall a trop fait du mal au Sénégalais. amul benn réew africain président africain bu mu def depuis indépendance ba léegi surtout Sénégal li Macky la def lu ñaaw te amul benn président bu ko def mm-hmm. di toroxal nit ñi nit ñi ñu deful dara di tëj nit ñi ñu deful dara et puis noonu lañ poussé ay jur yi ci ñaawte boobu def leen ba après bu demee day bàyyi ñooñu tamit ci problème ak population mais man benn message laay lancé xam naa ne dina ko jël mooy Badio kamara Badio Camara na xam nga ni daal am na ay doom am na ginnaawam te quatre-vingts ans la am a safulaay soixante ans et quelque mais wóor na ko ni yàlla nii xaalis mu ko joxe bi ñuy gis ci réseaux sociaux yi ay soixante six cent millions yi pour mu def ñaata billaahi Macky Sall bu fa jógee xaalis boobu ñu ko dundee dina ko fay te kaso lay dem même mu ne am na soixante ans buy doxaat pan bant rek kaso lay dem parce que li muy yàq ci réew mi bu dee Macky Sall moo ko yàquloo moom bu gënu xelam dafa waroon bay ay doomam si ginnaaw ay sëtam ay famiyam Macky Sall waru ko jaral loolu yàlla moo ko jaral war a jaral mu dafa dem ba ba mu màgget ba retraité war na war na jiital xelam bu baax a xaalis warul tax ñu def ñaawte suba lu koy topp parce que Macky Sall du ko mën a génnee Macky Sall boppam lay sauvé à part le vingt cinq février Macky Sall bopp boppam kese lay sauvé léegi nag Badio Camara li mu def bu dem dafa foog ni xaalis moom wala dina def lu ñaawte après bu jóg Macky Sall dem jógee foofu di moom dina dund ci jàmm billahi dina xam ne yàlla ci bëccëg dina gis jinn ci ci bëccëg dal kam yàlla yàlla moo mën a fay bor moom tamit addunam yëpp da koy yàq mhm. war na delloo ci xelam na bàyyi Sonko nekk président Sonko amul benn kii bu ko mën a gàllankoor pour nekk président mhm, mhm. buñ ko fayee xaalis mu bëgg def ñaawte bu pour toroxal peuple bi billahi wallahi tallahi moom moo koy fay Badio Camara bi adduna yëpp dina ko yërëm suba d'accord parce que loolu li mu préparé ni du bàyyi noonu moom mooy fayale koo kase ak famiyam képp ku nekk famille Badio Camara na ngeen ko xelal Macky Sall pare na président bu pare deux waa moo ko desee war na dugal ci ay ay ay ñaawteef yu mel ni après mu na ci billahi Macky Sall muy dem képp ku mu dewul même ay juge juge yi ak ak kii euh, ki nekk euh, nu mu tudd Sendele Fall bi ñëpp mais est-ce que am nañu xel président bu pare kooku su demee boppam lay xalaat ñoom conflit bi mun na ñoom fii ngeen di des fii ne leen fekk fii na leen di bàyyi ngeen foog ni li ngeen di ngeen di ñaaw Macky Sall dina leen favoriser wala dina leen muur non xanaa xanaa yàlla yàlla du muur loolu. na waar doy na waar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. dañuy kontaan moom rek di def lu ñaaw teef rek deux mois moo desee. dañuy sauver seen doom yi ak seen ginnaaw bañ a topp Macky Sall la jeexal na ba pare. peuple bi actuellement peu du peuple moom duñ baale. Mm-hmm. xale yi ñi nekk ci réew mi ñëw ñu dundee léegi ñu màgg jël dañoo muus surtout si euh, moment internet lépp lu du du di leen ko feeñal di leen ko teg ci table bi ñoom ñëpp ils vont répondre à leur à leur sale boulot inchallah kenn du leen baale même kuy def bu ñuy def lépp lu alal bi ñu leen joxe dañ koy nangu dugal leen kaso. parce que réew kenn du ko ñàkk di ci ma ci jaamatee nii après yow nga dem noppalu ay ni ñi dee nit ñi tëj. non loolu mënul nekk. Mm. nañu delloo si seen xel. am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk mi merci beaucoup euh, voilà 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Pape Ibrahima Faye nee na saa Touba lay euh, xaar peut-être.